إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokk jullit yi ñi ngi sant suñu boroom di seede ne mbooli mi xéewal yi feeñ ak yi nëbbu ci moom dong la jóge ñi ngi koy seedeel ne moom dong ya yoo ñu koy jaamu di ko seedeel ne gëm nañ yonent bi mu yónni woon ci ñun muy jaamam ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ñëwoon dañu jàngal nu ñu koy jaamoo gannaaw loolu mbokk julit ñi ngi wëy ak yéen gannaaw ba nga xamee ne nii lii di campagne électorale ci Sénégal mi ngi wëy ñi ngi wëy ak yéen di sof ci xutba bi nga xam ne jaarale woon nañ ko fe ci àjjuma ji wees ndax kat dafa mel ne loolee ñu ta jotoon a wax yépp sunu mbokki imaam yi jot koo wax teewul nit ñi dellu nañ ca aada yañ dellu woon mooy campagne électorale ñëw na élection ñëw na noonoo tasaaroo na ci biir nit ñi bañante xastante bal dem ba reyante tuur bakkan sax am ci loolu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu bokk li ñu bëgg a fàttalente ak yéen tey mbokk julit mooy ñu xam ne li ñu war day mooy ñu ragal suñu boroom ragal yàlla bu wéree ci xolub jaam moo koy musal ci réer moo koy muccal ci jafe-jafe yi moo koy may ak dal ci tiitaange gum mën a doon di ko musal ci alkaange yi doomu aadama bi ragal yàllaam wér ku mel noonu day suñu boroom dana ko may ay làmp yu muy niite mu xàmmee fan mooy yoonu njub yoon fan mooy yoonu ngërëmal yàlla xàmmee fan mooy yoonu réer fan mooy yoonu cheytaan moom lañu suñu borom di wax ne e yéen jullit ñi ma gëm su ngeen ma ragalee day danaa leen may génnuwaay may leen ràññee far seeni bakkaar jéggal leen seeni bakkaar yépp boole ca ay ngëneel yu mag lu ma leen di jagleel looloo tax ba mbokk julit wareef la ci julit muy laaj boppam waaw man su dee yàlla dama nattoo ma nekk ci àdduna ca àdduna fees delle ki fitna fitna yi ma mën a bawoo fu ne yee ngay jëm ci sa alal yee jëm ci sa bakkan yee jëm ci sam réew yee jëm ci sa njaboot ila axiri ana lan mooy sama taxawaay ci loolu loolee mbokk suñu delloo ci njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral nañu ci gën jaa màgge leeral yoo xam ne ku ca jaar insha allah doo joom ngiree temps bu xat bi daañ leen ca tënkal rek fukki bind yoo xam ne jullit bu ko gànnaayoo dana jafe lool fitna am ci moom jeexital mbokk bind bu njëkk bi mooy yow jullit del ñaan yàlla musal la ci fitna fitna kat sunu borom yàlla moo koy indi na doon dayaka sabab wala sabab sa moroom moo ko sabab da ngaa war a ñaan yàlla musal la ci fitna di fàttali ko waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana ñaan ca di ñaax jullit ñi ñuy ñaan ay yàlla maa ngi lay ñaan nga dëppale maag may jëf-jëf yu yiw yi dëppale maag may bàyyi jëf yu bon yi wërsëgal ma ba bëgg miskin yi nga jéggal ma nga yërëm ma ca yàlla day boo nemmee fitnaal ay nit yàlla nag ma féewaleeg loolu jël ma ma bañee fat fekk fekkee la nga xam ne muy fitna yooyee loolee mbokk fitna dafa bari ay façon am nañu yàlla fitnaal seen diine ba ñu mujj bàyyi diine ja ngir fitna ya nga xam ne moo tar ci ñoom yàlla yàlla musal ñi ci loolu am na ñoo xam ne yàlla fitnaal na leen ci alal ak i bànneex bañ mujj bàyyi seen diine loolu nag mbokk julit dee moo gën loolu looloo tax yonent bi doon ñaan ñaan boobu bokk na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne bari leen di wax yàlla ñi yàlla ñu musal ci fitna yi feeñ ak fitna yi nëbbu yëpp loolu imam muslim solo na ko bokk na lu mu jàngal bépp julit góor ak jigéen soo demee bay taaya ngalla way taaya boobee nang ca boole ñaan ñaan yi ca mooy ay yàlla yal nag ma musal ci mbugalu jahannam yal nag ma musal ci mbugalum bàmmeel yal nag ñu musal ci fitna yi am ci dund ak fitna yay nekk ca dee yal nag ñu musal ci fitna yi masixi dajjal mbokk lii képp koy taaye ba julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo paree da nga koo war a boole sa julli même bu doon te ne mënaguloo ko ngalla waay jàpp ko soo jullee ba pare dee ko ñaan mi ngi noonu allahuma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi alqabr wa min fitnati almahya walmamat wa min fitnati almasihi ad-dajjal bokk ñaareelu taxawaay bi julit di war a bàyyi xel ci fitna mooy heure boo xamee ni nii fitna ñëw na mu xam ne nattu la bu ko yàlla nattoo fitna ba ci moom la yem wala fitna la mu dal ci réew ñu xam ne lii nattu la ci yàlla la jóge su boobaa ñu daal di góorgóorlu waat yeesal suñu pas-pas ci yàlla gëm ay dogalam ca xam ne lii moom dong moo ko mën a def borom bi subhanahu wa taala ne benn musiba du dal ci jaam yi lu dul ni suñu borom yàlla subhanahu wa taala moo ko dogal ci ndigalam mu ne nag képp koo xam ne gëm nga yàlla yàlla jubal sa xol yàlla moo xam lépp loolu tax bu fitna bu ñëwee nga yeesal dellu ci sa borom daa di gëm ne lii kat ci moom la jóge yàlla moo lay teete ba xam nooy def ba mucc ca loolee ñetteelu mbir mi mbokk julit bokkoon na ñu junjoon ko ci suñu xutba bi passé mooy mbokk fitna bu ñëwee nañu xam ne seytaane ca lay bëgg a profito ngir tasaare jaami yàlla yi amul lu gën a neex seytaane ki armeem lu mel ne teqale jaami yàlla yi loolu tax julit ñi war a yeewu wala toog wala waxtaanaat war a joxante loxo ca xam ne kat loolee buñ ko deful daf leen di jural musiba boo xam ne nii musiba ah buy jeexital ci seen àdduna jeexital seen alaxira suñu yonente salallahu alayhi wa sallam gis nañu ne daanañu teete ci ne day bàyyil naa leen loo xam ne fii ak yéen ngi cay daje di ca jàpp du ngeen mën a réer mukk ca mooy la nga xam ne mooy téere borom bi ak sama sunna si ca loolu it mbokk moo mën a boole doomu aadama yi léeg-léeg coow li dana bëri nañu ànd nañu ànd waaye dëgg rek mën a boole ay nit ñépp ñoo xam ne duñoo bëgg a ànd ci ànd ñu ci dëgg ànd ba bu commencé yépp du am fu mu sottee abadan kon fokk nit ñi gëm yàllay kenn fokk ñu gëm yenent yàlla bi xam ni ñun ñépp mooy suñu roykaay loolu rek mooy la nga xam ne moo ñu mën a boole ñeenteelu mbir mi yow mbokk julit mooy nga daal di góorgóorlu bu baax xam ne day jaamu yàlla ci jamono yi fitna loolee ay ngëneel yu rëy ma nga nekk ca loole suñu yenente salallahu alayhi wa alihi wa sallam daana wax ne day kii nga xam ne moo sax ci jamono yi fitna ak lu mu tartar ci moom mu daal di sax ca jaamu yàlla gam nekkoon nee na mi ngi mel ne waa ji gàddaa yoon jëm ci man al ibadatu fi lhëraj ka hijratun ilayya rawahu muslim la nga xamee ne mbokk mooy juróomeelu taxawaay ba yow julit mooy bari lool la nga xam ne mooy jéggulu sa borom suñu borom yàlla moo ñuy wax ay place yu bëri ci téeréem bu tedd bi bokk na ca falawla is jaahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun ana lu tee bi ma indi fitna seen biir nit ñi toroxlu dellu ci yàlla tuub seeni bakkaar waaye xol yu wow moo tax ba jamonoy fitna li ëpp ci nit ñi fàtte seen boroom seytaane taaralal leen yeneen mbir yoo xam ne jàpp nañ ca mën nañ caa jaar ba mucc ci fitna ya loolu dana baril ci doomu aadama ñi yàlla nattoo ak ñàkk au lieu ñu dellu ci yàlla toroxlu ci yàlla baril jéggulul yàlla ngir yàlla teggi loolu dañuy dem jàpp ne buxaaba ya mën nañ leen koo rek leen ñi yàlla nattoo ñu feebar au lieu ñu toroxlu ci kanamu yàlla dëkk ñaan yàlla dañuy jàpp ne buxaaba ya mën nañ leen koo teggil moom la borom bi subhanahu wa taala di wax naan seytaane taaralal na leen lañ lañ ñekkoon di ko jëfe gis nañ ko mel ne ali radiallahu anhu daana wax ne ma nazala balaun illa bi zan wala rufia illa bi tawba yéen nit ñi xam leen ne balaa du wàcc ci bakkanu nit wala mu wàcc ci ab société lu dul bakkaar ya moo koy waral mu ne nag la koy yëkkati mooy tuub bu sell mooy mën a yëkkati loolu ngalawaay mbokk jamono yi fitna nañu bari li def istixfaar nañu bari di jéggulu la nga xam ne mooy suñu borom dëgg la nga dégg ñu naan sarxe leen ñetti ne nag juróom-ñaari sukk rek alaxiri mbokk la nga xam ne mooy dëgg-dëgg mbir mooy fitna boo ci bëggee mucc la cay muccale mooy toroxlu ci yàlla jéggulu ko ñaan ko bu ñëwee ba pare it la ko yëkkati mooy toroxlu ci yàlla jéggulu ko ñaan ko loolu it moo tax ba mbokk dañ ñaan juróom benneeli mbir bi nga xam ne julit mën na caa jaar bay mucc ci fitna mooy la nga xam ne nii moom mooy jéem a xam diineem jéem koo jàng jàng boo xam ne nii ah jàng bu wér la suñu borom mi ngi naan falawla nafara min kulli firqatin minhum taifa liyatafaqahu fi ddin wa liyunziru qawmahum ida raja'u ilayhim laallahum yaxzaruun suñu borom mu ne yellul julit ñépp jóg ne dañuy riiri wuti xam-xam waaye bu amee ñu dem bu ñëwee nañ jàngal ñi ci des ngiree ñu mën a doon ñuy fuglu mbokk xam-xam moo lay teete ba nga mën a moytu fitna xam-xam moo lay teete ba jamonoy fitna nga xam ana fan mooy la nga xam ne moo cay jaar donte ne bokk na ci mandarga yi wane ne bis penc mi ngi ñëw la yonent bi alayhi salatu wasalaam waxoon inna min ashrati saa an yurfa al ilmu wa yazharu al jahl bokk na luy wane ne bis penc léegi mu teew doomu aadama yi dañuy réeréel xam-xam lay feeñ mooy ak réer xadis boobu buxaari muslim solo nañ ko bokk juróom ñaareelu mbir bi nga xamee ne nii moom mooy la julit di war a bàyyi xel ci jamonoy fitna mooy mu daal di xam ni doomu aadama bi day yàlla subhanahu wa taala bu ko mayee aasiya may ko jàmm mi ngi ci trésor bu rëy fitna nag mën naa ñëw teqalee la ak loolu looloo tax julit day bàyyi xel la yonente bi alei salaam doon wax nicmatan magbunun magbunun fihima kasirun min annas asixa walfaraax ñaari xéewal yu rëy ngi nii ñoo bari ci doomu aadama yi dañ caa perte mooy jamono bi nga amee wir gi yaram ak jamono bi nga amee ak jot loolee mbokk julit soo gëmee ne àdduna kat day wëlbatiku ay fitna mën na jóge fu nekk war ngaa góorgóorlu ba jamono yooyee lépp loo xamee ne nii man nga ko ci lu baax nga jéem ko taa def yonent bi gën na koo leeral feneen ca na góorgóorlul ci juróomi mbir yi sa dund gi góorgóorlu ci balaa dee di ñëw sa wér gi góorgóorlul balaa wére dee di ñëw sa jot gi góorgóorlul balaa ñàkk jote di ñëw mi ngi noonu ndaw gi la yàlla wërsëgal ngalawaay góor góorlul balaa ak màggete di ñëw mbokk julit juróom ñetteelu taxawaay bi julit di war a taxaw ci jamonoy fitna bokk na ci bépp problème bu bees bu ñëw bala nga caa nekk di wax di xuus di jël position nga laaj lan la ca borom xam-xam ya wax mbokk julit suñu borom yàlla moo ne وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزاءوا به أي نشروه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبتونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا suñu borom nee na li ëpp ci nit ñi problème bu ne këtt rek ñu jël position commencé di wax lu ñu tegul ci xam-xam mu ne moo ne day bu doon tene mbir bu xew dañuy dem laaj seeni borom xam-xam waaw lii xew moom lan moo ci position julit bañ leeralal leen ko suñu borom de nee na loolu moo nekkoon li gën ci ñoom mu ne ndax bu dul woon ngëneelu yàlla li ëpp ci yéen daan topp cheytaan yi ca it mbokk mi ngi noonu heure bu fitna tabbee yow boo bokkul ca borom xam-xam ya ñaar rek mën a am imma nga dellu ca borom xam-xam yi jël seen position wala nga jëfandikoo sa xalaat bopp cheytaani réeral la ca loolu na ko suñu borom yàlla subhanahu wa taala waxe mbokk julit bokk na lu ab julit di war a gëm ci juróom benneelu ponk ci juróom ñeenteelu ponk ci taxawaay bi mu war a taxawaay ci fitna mooy la nga xamee ni nii suñu borom yàlla dig nañu ko mbokk fitna guddi la waaye guddi lu mu yàgg-yàgg bëccëg day ñëw looloo tax jullit du mel ne yéeféer bi wala ki ñàkk a xam nga xam ne bu fitna tàbbee ci moom mu daal di ñëkki am ñu cay yegg ba am ay dépression ñee di drogué wu am nañu yegg sax ba far xaru benn yoon mbokk déedéet julit moom day jàpp ne fitna lu mu tar tar day fàttali ko waxi borom bi borom bi jalla wa ala moo ne wala nabluwannakum bi cheyin min alxawf waljuu wa naqsin min alamwal walanfusi walthamarat wa bashir alsabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سي برم يالا موني اي يين جوليت ني دنا لين ناتو تي لين تي اي تيتانغي موم لا ناتو سونو مبوك yi nekk syrie nekk iraq ak lu bari foo xam ne ay guerre dafa am dinaa leen nattoo ci xiif boo demee programme alimentation mondiale dañ naan la ay millions ci doomu aadama dañu nekk ci xiif la ngeen daan am ci alal danaa xëy nattu nattu leen wàññi ko seen njaboot yi danaa xëy jël ci la nga xam ne mooy seen i meññeent danaa xëy ah xañ leen ko waaye suñu borom mu ni bégalal ma ña nga xam ne dañuy muñ la yàlla jëkk a wax ci nattu mooy bushra kalla waay yow julit nattu am na bégal bégal ci lan suñu borom mu ne mooy ñi nga xam ne bu ma leen tegee nattu na doon ca bakkan bala njaboot gala alal jala mbokk yàlla la ñuy jëkk a wax mooy ñun de yàlla moo ñu moom lu ko neex def ci ñun ci yàlla la ñuy dellu pay yu rëy mag ñu fay xaar ci nattu bi nga xam ne teg nañu ko suñu borom mu ne ñu mel nii day yàlla dana leen gërëm ñu mel nii day yàlla dana leen yërëm ñu mel nii day yàlla dana leen jubal looloo tax mbokk dañ naan nattu lu mu tar tar ak ay woyof ak ay néew doole ci la nga xam ne moom la ko suñu borom yàlla nar a fay ca mooy la jëkk mooy al bushra bashir sabirin gannaaw ba suñu borom mu ne as salawat dana leen gërëm ar rahma dana leen yërëm al hidaya dana leen jubal lii la mbokk julit di war a xam ci heure bu natt dalee ci kawam le journaliste wax bu dee dëgg la xale boobu ñu tiim ci tamba di ko dóor ay xeer rey ko rey bu gën a ñaaw nee nañ ci kanamu yaayam lañ ko defee loolee mbokk ndax nattu munta passé loolu na am nattu bu rëy la waaye yaay jooju buñ ko gisoo nit dañ naan ko suñu borom lii la lay dig ci sa doom ji nga xam ne moom la jël ay yéen mbokk julit xam leen ne day suñu yeneen tub avertiroon nañu nee na mi ngi ñëw ci sama gannaaw jamono yi fitna yoo xam ne ña cay nangoo ngoy sama sunna dañuy mel ne ñu ngoy ci ay xali safara waaye ña ca nangoo muñ ngoy ci sama sunna daañu am yoolu juróom fukki jëfkat ci yéen benn sahaaba jóg na ko ah xanaa ci ñoom kay mu ne déedéet ci yéen lépp lu ngeen def ci sunna ñoom buñ ko defee yàlla fay leen ko juróom fukki yoon loolee mbokkoo mooy fitna yi axiru zaman dañuy dem ba dëgg réer ñiy wax dëgg ñoom ñooy dof yi ñooy ñi réer ñoo indi diina ju bees ñoo ñooy yàq diina ji ñoom la ñuy caricaturer ñoom la ñuy def lu nekk loolee nag yow ma nga xam ne muñ nga loolu nara am jafe-jafe ak sa famille nara am jafe-jafe ak say dëkkandoo loolee da ngay gis moom la yonent bi alayhi salaam doon wax ci jamonoy fitna la la ca nar a ñeel ci pay gu bawoo ci yàlla ay yéen bokk julit bokk na la ñuy mujje ci loolu mooy yow julit nga jéem a daw sa kemtalal kattan fépp foo xam ne fitna dafay génne na doon fitna boobee dafay jëm ci wàllu luy yàq pas-pasu doomu aadama ngal la way daje yi 99 pour cent daje yi ñu woote tey di ko tudde daje yi diine xamal ne daje la yuy yàq ay pas-pasu doomu aadama yi jële nit ñi ci gëm yàlla gëmloo leen ay doomu aadama jële nit ñi ci sukkandiku ci yàlla sukkandiku loo leen ci doomu aadama ngal la way moytul ma loolu muy li ñuy tudde ashubuhat waaye daje ya nga xam ne it ay caaxaan la lépp loo xam ne nii ay fo ak i puukare ngal la way yow ndawal julit waxuma yow magum julit ngal ngal ngal la way moytul ma loolu moytul ma loolu suñu borom borom yàlla daal di ñuy teete daal di ne ngal la way yow julit واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ما لي تيتي يو سم جام ديل توغك نيغا خامني داني فاتلوكو سين بوروم سوبا اك نغون del toog ak ñi nga xam ne ngërëmal yàlla rek la ñu sàpp bul jël say bët mukk di ko jàllale di xool ñeneen ñi nga xam ne adduna dong nga tax ñuy jóge ka daje bul ma bul ma bul ma toppal koo xam ne xolam ba dañ koo fàttaloo boroomam la nga xam ne moom lay topp mooy ay bànnee xam mbiram yépp nekk loo xamee ni nii en dafay doon ak pertange looloo tax yow julit jamono fitna bu ñëwee ngal la way téyel ma sa tànk téyel ma saw lammiñ yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana wax ne fitna ngi ñëw sama gannaaw yu bari fitna yi day bu ñëwee ña nga xam ne ñoo toog ñoo gën ña cay dox mi ngi noonu ña nga xam ne ñoo cay dox moo ñoo gën ña nga xam ne ñoo ciy xir di ca jublu képp koo xam ne yaa nga dem di ko uti moom it dana la xëcc dugal la ci boppam loolee kon ñu bàyyi xel ñi ngi dund li ñuy tuddee jamonoy campagne électorale ba tey doomu aadama yi lu ne ñi ngi koy wax lu ne ñi ngi koy def waaye nga la way yow góor góorlul téyel ma sa lammiñ bi xamal ne yonent bi alayhi salaam day daana wax kullul muslim ala al muslimi haram damuhu wa maaluhu wa irduhu julit lépp lu ma am aram na ci mbokk julitam du deram du deretam du alalam waxumaa nag la nga xam ne mooy ab bakkanam ngal la way loolu nañ ci bàyyiwaat xel bu baax bàyyiloo ko waat xel suñu njaboot mbokk lii ak ndollanta la gu ñu dolli ca xutba ba nga xam ne nii moo fi weesu woon di fàttali it ne la war ci ab jaam ci jamono ji mooy ku nekk ci ñun day xam ne yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moo moom nguuram di ko jox ku ko neex yow julit bul jiital ngërëmal yàlla ci sa ngërëm ñaanal yàlla jalla waala ey yàlla ñépp ñi nga xam ne ñoo nekk di xëccoo réew mi ka nga xam ne yàlla moo ci gën ci waa réew mi ka nga xam ne moo gën ci ñoom ci seen wàllu diine avant seen wàllu adduna ngal la waay yàlla na nga ko jox nguur te jàppale ko gannaaw ba it bu dee yow sa iccihaat may na la nga jàpp ne kat xëy na kooku ma sàmbala wala ma dembala sooy dem di ko jàppale nga jàppale ko jàppale gu àndula xuloo jàppale gu àndula xeex bal jàppale ko jàppale defere ak jubbanti ak boole lii day mbokk jàpp nañ ne mooy taxawaay bi nga xam ne julit bu ko bàyyi xel taxaw ko na doon ci li ñuy dund wala leneen lu mën a doon yàlla subhanahu wa taala dana ko musal yàlla dana ko aar te dana ko dencel pay yu màgg yàlla na yàlla subhanahu wa taala defal ñu loolu yàlla na yàlla wërsëgal ñu élection yoo xam ne yu dal lay doon li ci jot a faatu ci ay bakkan yàlla na yàlla yemale ko foofu ña ca faatu yàlla na yàlla jéggal leen ci yërëm leen ña nekk ci hôpital yi yàlla na yàlla saafara leen yëkkati leen yàlla na yàlla defal ñu aafiya ci suñu réew yàlla na yàlla naatal suñu réew yàlla na ko yàlla def réewum lislaam yàlla na yàlla may ñu pas-pas yu sell may ñu ñu jaamu ko jaamu goo xam ne gu sell lay doon yàlla na yàlla sorul ñu shirk yeeg bidaa yi yàlla na yàlla sorul ñu féewaloo gi ak taqalikoo gi allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin